rahim auditeur ak auditrice yu Mourchid FM 87.6 ak internet yi nga xamante ni yéen a ngi ñuy suivre à travers nos plateforme yi nga xamante ni ci ngeen ñuy suivre moo xam YouTube la wala Facebook ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di jiital ci nuyoo bi nag Cheikh Mouhamadou Moustapha si Al bi nga xamante ni mooy responsable bu Mourchid FM tey jii ci njàmbaaram lañu ñu taxawal rajo bi di nuyu tamit euh, sëñ Aboubacar Sy Mansour xalif général de Tidiane ah mu yóbbaale nag kilifa diine yëpp euh, di am mbégte rek di àndaat ak yéen ci émission bi nga xamante ni ne ko tànnal seen bopp safol ko seen bopp muy émission daara yi émission daara daara yi comme ni ñu koy waxee saa su nekk rek émission la ba nga xam ne li ko tax a jóg mooy daara bés bu nekk nag dinañ dalal mm, sëriñ daara baayu daara yaayu daara wala ñooñ daara képp ku nga xam ne rek daara yi yitteel na la incha allahu taala dinañ ñëw ba ci yow waxtaan ak yow mën a yaatal li nga xamante ni mooy mbir moomu euh, tey nag incha allahu taala ñu fas yéene ànd ak ci émission bi ak ku nga xamante ni sëriñ daara la comme niñ koy waxee saa su nekk di nit ku nga xamante ni xëy na gis ngeen ko ci affici yi muy Cheikh Ahmad Tijani gay wante comme niñ koy waxee moom incha allah dinañ dugg ci présentation bi ginnaaw bu nuyoo ba pare. dinañ mën a xam mooy kan ak fan lay jàngalee ak fan la bàyyi ko incha allahu taala kon ñu jox sëriñ Cheikh rek mu nuyonte ak euh, internautes yeeg auditeurs yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله ورضي الله عن شيخنا وسيلتنا وربنا أبي العباس أحمد بن محمد شريف الحسن التجاني رضي الله عنه رضا لا سخر بعده أبدا نحييكم بتحية الإسلامية تحية من عند الله مباركة طيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar ku nekk turam ak santam fa tabarakallah comme ni ko suñu Euh, euh, mag suñu waajur al oustaz Mouhamadul Mansour ni mu ko waxee rek incha allah euh, ñu jiital suñu nuyoo rek ci borom kër gi di sëriñ Mouhamadou Moustapha Sy fa tabaarakallah ñu sopp ko lool bëgg ko lool ñu ñaanal ko yàlla subhaanahu wa taala yàlla may ko gudd fan ak wér ak wérle yàlla may ko mu eggalil fa tabaarakallah mission yi mission yi waajuram waaye tamit fa tabaarakallah ñu jël suñu nuyoo ci mboole mi Euh, sëriñ yi nekk ci biir Tiwaawoon ñu jiital si alxalifa cheikh Mouhamadul man euh, cheikh Mouhamadul Mansour macha allah euh, ñu jël nuyoo yëpp teg ko ci loxoom fa tabaarakallah mu jottali ko mboole mi sëriñ yi nekk ci biir Tiwaawoon yëpp wala ñu wax wala usratu Seydi El Hadji Malick Sy yëpp incha allahu taala fa tabaarakallah ñoo ngi ci ñoo ngi rafetlu torop tamit macha allah ci invitation bi incha allah taala incha allah. Euh, jërëjëf euh, oustaz ñoo ngi euh, rafetlu bu baax a baax kàddu yi ak nuyoo bi bu ko defee rek comme ni ngeen ko miinee ci nuyoo yi tamit dañuy nuyuwaale ki nga xamante ni suñu kilifa la suñu soppe suñu sang la nekk fële ca ñànge edi di Thierno Mamadou Adama Gaye xam naa sax après dinañ ci ñëwaat pour ñu gën a xam ceer no Mamadou Adama gay mooy kan du ñu fàtte nag nuyu ki nga xamante ni moom mooy maire dëkk bi di le maire Demba Diop Sy ak ki nga xamante ni moom mooy yor lépp lu nga xam ne moo jëm ci daara yi ak cérémonie religieuse muy Mamadou Sall Mamadou Sall nag ku ko dégg di nga xam ni mooy ki nga xamante ni moo yor wàllu daara yi kon Mamadou Sall ñu ngi lay nuyu ak euh, ñi nga collaborer yëpp si liggéey bu ko defee sëñ Cheikh ñoo ngi rafetlu bu baax euh, nuyoo bi di rafetlu kàddu yi bu baax a baax Cheikh Ahmad Tidiane yi Gaye euh, sëriñu daara la mais yow Cheikh mën nañu xam ndax Tiwaawan nga cosaanoo wala da ngaa jóge beneen dëkk ñëw fii samp fi daara. ok macha allah euh, Cheikh Mouhamadul Mansour tabarakallah comme ni nga ko nuyoowaale macha allah suñu maire bi di di Diop Sy tabarakallah ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar ki nga xam ne mooy mu am taxawaay bu rafet ci daara yi macha allah di ko ñaanal jàmm yal na ko yàlla taxawu euh, noonu la tamit ñu nuyu suñu euh, mboolemu ahlul Qur'an ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar fa tabarakallah mooy mboolemi ustaas yi nekk fii ci Tiwaawoon ñu am ci benn euh, jamiya ñu tuddee ko ahlul quran ci njiit bi nekk suñu président al oustaz euh, Alioune Alioune Sarr ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar di nuyu mboolo mi mboolo mu jamiya bi yëpp ñu ngi leen di di leen ziyaar incha allah Cheikh Mouhamadul Mansour boo ñu laajee ndax fii si Tiwaawoon dañu cosaanoo wala euh, déet dañ lay wax ñun cosaanoo ñu fii ci Tiwaawoon waaw incha ñun dañoo jógee fee ci Fuuta waaw dëkk bi ñuy wax ñangi idi waaw foofu la ñu jógee bàyyeekoo ñëw fii ci Tiwaawoon waajur yi nag ak ndigalu waajur yi incha allah ñoo ñuy ñëw ñu ne nañ ñëw toog fii ci Tiwaawoon eh, teg fi daara ji alquran incha allah. jërëjëf sëriñ li mu wax yaakaar naa leer na moom moo ngi cosaanoo ci benn dëkk bu nekk Fuuta ñu di ko wax Ñànge Edy fa la eh, sàkkoo xam-xam ba ñëw eh, ci ndigalu ay waajuram la ñëw sos fii daara mais sëriñ bi xam naa bala ñuy ñëwaat ci question yi rek dañuy leeral ñi nga xam ne ñooy auditeurs yi ak internautes yi di leen wax ni tey dañu am benn panne ci rajo bi ñi nga xam ñoom ñoo ñu doon jàpp ci 87 point 6 dañu leen di jéggalu rek di ñaan rek ngeen jéggal ñu bu baax a baax ndax euh, mbiri machine tamit moo demee noonu ndax tey bu baax suba mu am problème sànq rek la am problème moo tax euh, tey ci Facebook beeg YouTube bi rek ngeen ñu mën a suivre mais ginnaaw lii incha allah dinañ ko tegaat ci rajo bi ñëpp mën koo déglu incha allah euh, Serigne Cheikh. est-ce que mën nañu xam si sa wàllu ginnaaw bi nga waxee ni ñaa ngi eh, nga bàyyi ko est-ce que mën nañu xam fan nga jaar ci sa wàllu njàng. waaw fa tabaarakallah eh, Cheikh Mouhamadul Mansour eh, man sama wàllu jàng bi yàlla defee ma ñëw macha allah juddoo foofu ci njàng idi macha allah samay waa samay waajur sama waajur góor tudd Cheikh Mouhamadou Adama Gueye sama waajur ji jigéen tudd Hadja Hawa tabaarakallaahu tabaarakallaa bu mu ñëw 1989 laa judd foofu si ñangi idi waaw bu ma demee ba jot euh, dugg jàng nag sama papa fa tabaarakallaa moo ma bindal ba moo ma bindal baa fa tabaarakallaa ma nekk fi ba jàng limta ba hijja ba commencé jàng tëri nekk fa ba yàlla soob foofu ci kër gi di jàng après nag suñu sama waajur jël ma génnee ma yóbbu ma Dakar man ak samay rakk ak samay mag ci Kër Massar suñu kër eh, gi nekk dakaar Kër Massar ñu ànd foofu suñu suñu eh, nijaay di Thierno Mouhamed Ahmadou Ndiaye falaa nekk nag ba jàng ba commencé wàcc après nag 2002 hmm. lañ jógee waat foofu jëm penku jëm dëkk bu ñuy wax ci loñ waaw jëm ci loñ falaa nekk nag deux mille deux ba deux mille onze falaa nekkoon di jàng alquran foofu fa ci daara ji muy daara Cheikh Abdul Qadir li rahimahullahu alayhi rahmatan waasiya ak eh, njool fuutu mi njool fuutu mi ngay gis fa tabaarakallah ci daara jooju la jànge alquran di doomam tamit sëñ Moustapha di taawam fa tabaarakallah ah, fekk na fekk nañu foofu ci daara ji foofu lañ nekkoon di jàng alquran fa tabaarakallah ma nekk foofu tamit eh, lu yàlla soob foofu ci ci ci loñ fa tabaarakallaa yàlla deful nag ma mokkal fa waaye demoon naa ba ba jege fa mokkal hmm. waaw yàlla def ma dem ba xaw a miin dëkk bi daal ma ba ma demee ma àndoon samay rakk am ñu commencé mokkal sama papa nag dafa nekkoon koo xam ni ku bëgg alquranul karim waaw bëgg alquranul karim euh, def na sax ay nit nii bu ñëwee ci moom ay taalibe bu ñëwee ci moom bu ko waxee yow da ngay jàng day wax mbaa mokkal nga alquran loolu la lay njëkk loolu la lay njëkk a laaj fa tabarakallah bu ñu nekkee foofu nag ci ci loñ ñu ànd foofu suñuy rakk yi am ñu commencé mokkal ma ni man daal kon sama papa daa bëggoon euh, ku mokkal alquran léegi am na doom yu euh, mokkal alquran léegi kon na ma bàyyi man daal ma dem ma xooli chariye bi fiqhu bi ma dem ma jàngi fiqhu bi mu ni ma déedéet bu mu déggee loolu mu ni déedéet loolu koy ànd ci nee na saa yu ma demee ba wax maa ngi bàyyi alquran daal hmm. moom bu boobaa day pare ci man moom eh, moom sama papa Thierno Mouhamed Adam fa tabaarakallah mu fiiral ma lool mu fiiral ma hmm. mu ni lan laa digal hmm. demal delluwaat nga defaat alluwe ndax nga mokkal alquran loolu la ma wax bu mu defee loolu yàlla def ni nag ma delluwaat ñàng idi boobu muy temps ziar la woon am benn sëriñ bu fi ñëw ñu koy wax Thierno Seydou lii ci sëtu alxaji Mouhamed musa li ca Daara xale bi fa tabaarakallaa mu yor daara e, ci ndar mu ñëwee ci siyaara bi nag bu ñuy muy mu jiite foofu tisbaar sama papa nee ko moom Thierno mu koy présenté mu ni kii doomu Thierno Tidiane la sëtu alxaj Mouhamadou Moussa lii la e, sëtu Cheikh Oumar la e, sëtu Cheikh Oumar la tamit ndax yaayam ci lëgu lëgu la bokk doomu Cheikh doomu Cheikh Oumar Muntaga Daha la mu koy présenté mu ni ndar la toog foofu la yor daara ju mag day jàngale alquran day jàngale fiqhu day lépp lay euh, euh, day jàngale man tamit ma gis ko mu neex ma lool mu doy ma mu nekk suufeel boppam ma bàyyi ba ziyaare bi paase sama fekk sama papa ci biir néeg mu toog ma ni papa man de waxoon naa damay damay dem jàngi fiqhu waaye comme que nga ni loolu àndoo ci bés bu ma bàyyi alquran mooy pare nga pare nga ci man ngi ni ma naa dem delluwaat jàngi alquran fa tabaarakallah léegi sama xel may na ma euh, ma dem ci ndar ci Thierno Seydou li ma dem ma continuer foofa alluwe yàlla def ni ak ak ak mbaaxam maa ngi ànd ak euh, macha allah bi himmatin aaliya maa ngi yor nag sama pas-pas bu rëy bi ma demee ndar deux mille deux mille treize deux mille treize laa ndar bi ma demee ndar fa tabaarakallah ma nekk fa lu soob fa tabaarakallah yor himma bu rëy ba yàlla def nag ma mokkal foofu ci loxam moom Thierno Seydou Ly falaa mokkale alquran ba jàng fa ay ahkaamu ahkaamul alquran ay himla rasma ibnu jazar ay ay eh, ibnu barri def ay alluwe fa tabarakallah bu mu jox ma sam ijaas ba delloo si ma foofu ci njàng idi moom eh, Thierno Seydou Ly fa tabarakallah di mooy sama jaari fa tabarakallah eh, tabarakallahu yaa ustaaz wax dëgg yàlla li mu wax yàlla jaar jaar bi mu am ci alquran lu am solo la mais imaam xam naa bala maa dellu siwaat ci daara ji fii ci Tiwaawan bala maa delluwaat ci daara yi nga xam ne fi nga jaaroon wattu fa xam-xam euh, damay dellu siwaat tuuti ci cosaan li ndax Euh, yaa ngi bàyyeekoo fu ñuy wax ñanga edi mm-hmm. ñanga edi tamit nekk dëkk bu nga xam ne dëkk waliyu la mm-hmm. bu ñu waxee dëkk waliyu sax du ñu tàmbalee ci ki nga xamante ni moom la ni ñi gën a mm-hmm. mais dañuy wax ñanga wuro alpha baaba donc mu nekkoon dëkk bu nga xamante ni moom ul alpha baaba dafa nekkoon boroom xam-xam bu nga xamante ni nit ñi dañ daan ñëw foofu di fa gëstu xam-xam mais yow itam nga nekk sët ci Cerno Adama Gaye léegi ma bëgg rek nga waxaat ma baax na bu dul Euh, Thierno Adama mm. at yu néew yi nga dund ak moom mm. euh, nan ngeen dundee mm. sa diggante ak moom ak xam-xam yan orientation la la ci doon jox. waaw fa tabaarakallah euh, sëñ Mansour li nga wax ci Cheikh Al Hadj Adama Gueye rahimahullahu alayhi rahmatan waasia yal na yàlla yokk yërmandem taas ñu ci barkem jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam allah Cheikh Al Adama bu waxee. ñi ngi wax ay mbiram ay mbaax mbaaxam fa tabarakallah kenn mënu ko jeexal waaw ñu xanaa dañuy abba kàddu bi nga waxoon imaamul euh, Bushayru wax na ko ci yenent bi sallallahu alayhi sallam nee na fa inna fadla rasulallahi laysa lahu xaddun fa yuriba anhu naadiqun bi fami waaw kon ab abbanaa boobu ab euh, bayt boobu bi nga xam ne Muhammadul Bushayri waxoon na ko yenent bi sallallahu alayhi sallam man tamit ma looloo dal Cheikh El Hadj Adam boo taxoon wax yaa ngi wax ay ngëneelam ci ay lii du munoo ko jeexal ci Adama Gaye fa tabaarakallah nekkoon na nit koo xam ni ku yéeme jaamu yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg fa tabaarakallah bari yërmande fa tabaarakallah toujours mi ngi digle nit ñi nañ topp yàlla nañ topp seeni waajur fa tabaarakallah nañ jéem a xam euh, seen seen lu leen di jëriñ. toujours loolu lay jàngale fa tabaaraka surtout nag lu muy digle mooy waajur nee nit ki na fexe topp waajuram bëgg a waajuram topp fexe ba am ngërëmu waajuram toujours loolu lay wax nee na nit ki bu fekkee bàyyi nga say waajur dem wuti sëriñ xamal ni yow doo fa am dara nit ki balaa ngay wuti sëriñ nee na na ngay jéem a am sa ngërëmu waajur ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ridallahi fi ridal walidayni wa suxdillahi fi suxdil walidayni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola wax nee na ngërëmu yàlla daal mu ngi nekk ci ngërëmu waajur say waajur bu ñu amee ci yow ngërëm rek xamal ni yàlla am na ci yow ngërëm waaye tamit bu fekkee ne say waajur gërëmuñu la xamal ni yàlla yàlla gërëmu la moom Cheikh Alxaaji Adam ci tànk yooyu la nekkoon nit ji xamal nit ñi nañ topp seen waajur nañ xam nu ñuy jaamu yàlla nit ñëpp benn lan te ndax moom daf doon wax tamit defal boo bëggee am noppalu sa àdduna boo bëggee sa àdduna baax defal ni ñëpp yow yaa yées fa tabarakallah nee na boo defee ni ñëpp yaa yées rek eh, fa tabarakallah bu boobaa yàlla dina la yëkkati ci maqaama yi gën a kawee ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo ne man tawaadaa lillahi illaa rafa'ahu ku wàccee sa bopp rek ñu yëkkati rek ba ci kaw moom Cheikh Al Hadj Adam ci tànk yooyu la nekkoon daana tamit di di jàngale nit diggante taalibi ak sëriñ nee na taalibe daal boo nekkee sa kër sëriñ fa tabaarakallah na nga laxasu nga summeeku nga nekk taalibe nga liggéeyal sa sëriñ daana di wax sax saa yu ay taalibe ñëwoon ci moom moom Cheikh Alaaji dafay wax jàng bu ñëwee liggéey bu ñëwee ak ak liggéey bu ñëwee jàng ñëw bàyyi leen jàngam ngeen dem liggéey ndax barke tamit ci la bokk fa tabaarakallah moom fa tabaarakallaa bu ñu waxee ñu ngi wax ay ngëneelam mm. fa tabaarakallaa daanako duñ ko duñ ko jeexal. am solo ndax ni nga ko waxee lu am solo la ndax Thierno Adama Gaye ku doon wax ay ngëneelam ak mbaax mbaaxam ak li nga xamante ni euh, doon na ko ñaax nit ñi di leen teg ci yoonu diine ak ci siraatul mustaqim mm. mënoo fee jóg waaye nag dafay baax mm. bu ñu dalalee ku mel ni euh, Cheikh Ahmed Tijani te ñu xam ko bu baax ñu leeral bañu xam fan mooy cosaanam ndax. nit dafa gaaw rawatina nag suñu penc yi ñu nekk muy pencu wolof mm. dañu xaw gaaw a xeeb nit mm. donc moo tax bala ñu lay laaj bala ñuy dugg sax ci Thierno Adama ñu laaj la fan nga jaar mm. ci wàllu daara maanaam yëf yi du mbir bu du du looy donn rek sama maam dafa nekkoon kilifa sama maam dafa nekkoon sëriñ rek ma xëy nekk sëriñ yow loolu dugalu la ci mbir mi mais da ngaa dem jàngi gëstu fàtte ni kat sa maam wëllu yu la mais boobu itam li ci gën a poussé mooy ëllëg mën nañ laa Euh, mën mën nañ laa teg fu nga xamante ni bu xam-xam amul doo mérité place ba ñu lay jox xam naa bala ñuy gën a continuer rek dañuy nuyuwaat comme ni nga ko waxee sànq dañuy nuyuwaat mm. suñu béy suñu baay suñu wéyjur mm. muy sëñ Aboubacar Sy Abdoul Aziz mm. ndax ci looñ la jaar ci wàllu daara waaye duñu fàtte suñu baay suñu wéyjur imaam euh, imaam euh, Ahmed Tijani Tall moom itam duñ ko fàtte dañ koy nuyu bu baax di ko ziar ndax ku tudd xam-xam ku tudd daara fii ci Tiwaawan tudd ko ci Ciloñ di nga ko ci boole ndax moom itam yaakaar naa ni foofu la jaar ci daara ay njabootam tamit daje nga ak ñoom ci daara ginnaaw nag ba nga jàngee xam-xam ginnaaw ba nga jógee ci ëttu tarbiya bu mag boobu di kër Cerno euh, Adama Gaye mi nga xamante ni ku ne xam nga ko ci àdduna léegi bi nga ñëwee Tiwaawan est-ce dal nga fi dal bu nga xamante ne daal dal bu yaatu la mm-hmm. est-ce que amoo woon benn jafe-jafe mm-hmm. pour mën a intégrer jóge Fuuta mm-hmm. ndax Fuuta tamit xëy na tund woowu ak tund wi wuute na ndax dañoo xaw a mel ni ñuy dund dund waalo waalo ndax boo ñëwee lafa am ci teraanga lafa am ca yaatu euh, li ci yow moo nekk ci keneen maanaam am na ouverture est-ce que bi nga ñëwee fii Tivaouane amoo fi jafe-jafe pour intégrer. waaw ma macha allah euh, sëñ Mansour comme ni nga ko waxee rek fa fii moom daanaka fii Tiwaawoon maam euh, bu ñu jógee ñangi idi ñëw fii ci Tiwaawoon wax dëgg yàlla amuñu fi benn jafe-jafe fa tabaarakallah ndax yàlla yombalel na lépp ndaxte dañoo ñëw tamit fekk fi suñuy mbok waaw ñu dalal ñu suñu kër maam macha allah di suñu maam kër euh, maam Aliou Guèye rahimahullahu alayhi rahmatan waasia fa tabaarakallah nit ki moom bi ko boo amee foo dem nga fekk fa say mbokk doo jaax fa tabaarakallah moo tax euh, bu ñëwee fi dalal nañ ñu ak suñuy mbokk yeneen yi nga xam ni muy ñoom Mouhamad Mbodj ak ñoom tamit fa tabaarakallah dalal nañu bu ñëwee fii moom wax dëgg yàlla ci Tiwaawan ak dëkkandoo yi foofu tamit yaatal nañu lool fa tabaarakallah suba bu yeewoo fa tabaarakallah danañ ñëw nemmeeku daara yi dana laa yiw lu dul lu dul am fi lu dul yokk di fa tabaarakallah gis nañ fi suñ bopp lool teeru ci wuñu ko fa tabaarakallah macha allah euh, loola mm. euh, kon dang nga sant yàlla wala boobu ñun dañ ciy sant yàlla ndax mm. bu ñu waxee yow wax nañu suñu bopp ndax mm. benn lañu donc bi nga xamante ni ñëw nga ba intégré daara daara ji nga xam ni moom nga sos di fa jàngale est-ce que mën nañu xam ban programme ngay wéyale daara ji daal ku fa ñëw di jàng yan nga koy jàngal waaw fa tabarakallah daara ji moom ñun suñu programme comme daara yi nekk ci Fuuta rek la waaw programme boobu rek dañu fa indiwaat daara bi tamit du internat waaw comme comme ni ma la ko waxee comme daara Fuuti yi la ñun moom nit ki bu ñëwee ci ñëw euh, bëgg a jàng duñ lay njëkk a bindal mooy te ñun ci ay alluwe la ñuy jàngee duñ jànge ay waaw baa lañ lay bindal nga limta limta bu mu jeex bu limtee nga hijja après nga tari fa tabarakallah boo demee boo jàngee ba am hizib boo amee hizib ma xëcc la euh, déglu la xool ndax hizib bi nga jàng mokk na wala mokkul waaw bu mokkee incha allah ma ni la nga jëlaat beneen isib bu mokkul tamit ma ni la nga delluwaat ci isib bi nga nafar ko bu mokk noonu noonu bu bu mokkee nag nga ñëw continuer waat jëlaat beneen isib boo jëlee beneen isib fa tabaarakallah noonu bu teeree bu teeree isib bi bu teeree fa tabaarakallah xisib bi bu teeree tamit ma dégluwaal noonu boo demee ba am juróomi xisib nag ma boole waat juróomi xisib yëpp ma dégluwaale lépp noonu la ñuy noonu noonu la defee programme bi bu ñu yeewoo si suba si cinq heures la ñuy yeewu cinq heures la ñuy yeewu jàng ba sept heures waaw ñun nag fa tabaarakallaa daara ji foofu dañuy yelwaane waaye bu ñu yelwaanee neuf heures dañuy dolli siwaat ci daara ji bu duggaatee neuf heures foofu ba midi ba euh, une heure mooy dañuy wàcc fekk ñu mokkal seeni àllu yi ñu bind bas ba ñu saatal leen seen àllu yi fa tabaarakallaa ñu wàcc bu ñu wàccee foofu tamit deux heures bu jotee ñu dem yelwaani ñun daara ji foofu dañuy yelwaani bu ñu yalwaanee ba dolli ci quinze heures ñu duggaat ci daara ji jàng ba cinq ba cinq heures jotee fa tabaarakallaa ñu tegaat alluwa yi mm. nafara seeni suura yi nga xam ni mokkal nañ ko seeni i yoo xam ni mokkal nañ ko ñu ñu nekk di ko nafaraat ma xo su ma ci bëggee am ku ma ci déglu mm. ma xëcc kenn ci ñoom ma ni kaay ñu ma déglu la ma xool ndax li nga passé baax na wala baaxul mm. noonu lañ koy defee maa ngi ma ànd foofu noon tamit sama rakk di Seydi El Hadji Malick Guèye euh, ma macha allah ñu ànd foofu ci daara ji ñuy dimbalante incha allahu taala tabaarakallah jërëjëf loolu lu am la ndax tamit comme ni nga ko waxee loolu lu am solo la ndax xale bi bu fekkee dafa ñëw nga war koo dalal di nga ko jàngal ci àll ndax loolu tamit euh, ba tey am na Tiwaawan bëri na Tiwaawan mais nag comme ak jamono bi ni muy doxee mm. bëri na daara yu nga xam ne jàngeetuñu àll wa mm. ñu ci bëri ñoo ngi jànge ay téere ndax téere la ñuy jënd di ko jànge mm. am na ñu nga xamante ne ñoo ngi jàng ci beneen méthode kon loolu am solo la te méthode bi nga xamante ni aussi moom ngay utiliser pour di jàngal xale yi tamit loolu nekk na lu nga xam ni lu am solo la te dina tax xale bi mën a mokkal alxuraan te loolu tamit moom la soxla ci ndongo daara mais ginnaaw euh, alxuraan boobu ngay jàngale boo ñu leeralee ndax comme nit ñi dañuy jàng yi ay riwaaye yu yu différent boo xoolee ne ñun li gën a li gën a bëri ñun riwaayatul xafs la ñuy jàng wala warsh donc après nga ñëwaat ci loolu ñu xam daara ji ndax dañuy jàngandoo ñaari riwaaye yi wala benn riwaaye la ñuy jàngi à part alxuraan bi nga xam ne moom la ñuy jàng tamit est-ce que am na yeneen mawadda yeneen matières yu nga xamante ni ñoom it teg nañ ko ci njàng mi ñuy jàng mm-hmm. waaw fa tabaarakallah ñun moom euh, riwaayu warsi la ñuy jàng waaw warsi moom lañ miin ci fuuta mm-hmm. fuuta yëpp daanaka foofu moom riwaayu warsi rek la ñuy ak suñu sëriñ tamit fa tabaarakallah di Cheikh Ahmad Tidiane Chérif mm-hmm. radiallahu taala anhu fa tabaarakallah moom riwaayatul warsi la mokkale alquran fa tabarakallah ci ci loolu lañ topp tamit fa tabarakallah ah, ñun tamit ba léegi ci riwaayu warsi bi lañ des fa tabarakallah ñun nit ki bu demee ba mokkal alquran am na yeneen ahkaam yuñ lay jàngal yooyu xam ni yooyu buñ la ko jàngale bu boobaa di nga mën bind sa alluwe kaamil bi yóbbu baqara banaasi fekk sa puwoo ci téere muy téere bu bu tudd ximla ak rasma ak ibnu jazar ay ak ah, macha allah ak ibnu bari yooyu buñ la ko jàngalee fa tabaarakallaa yooyu boo ko jàngee fa tabaarakallaa da ngay mën bind alquran baqara banaasi fekk doo tiim ci doo tiim ci téere fa tabaarakallaa Ah. jërëjëf loolu am na solo euh, dafay jaadu ki nga xamante ni moom mooy déglu di suivre ndax lii lu am solo la ndax aduna bi yëpp ñu ngi ñuy suivre mhm. ndax tey bu fekkee da ngaa wax YouTube adduna bi yëpp ñu ngi koy suivre bu fekkee yaa ngi wax Facebook adduna bi yëpp ñu ngi koy suivre mhm. kon rawatina ñi nga xamante ni ñooy ñu mbokk nekk fële ca Fuuta mhm. wala ñu nekk ci Dakar wala ñu nekk yeneen i dëkk loolu amul be ñoom ñëpp ñu ngi ñuy suivre tey te daara ki ko samp Tiwaawan a ki ko samp Fuuta ñoo yam ndax mën nga gis ku nga xam ne ma nga États-Unis dégg njàngin mi nga xamante ni moom nga wax ni programme bi nga tëral mu doy ko ci boobu su boobaa mu jëlee doomam ba foofa indi ko ci yow nga koy jàngal kon loolu lu am solo la mais bëgg naa ñëw ci li nga wax euh, jamono bi euh, xale yi bu ñu jàngee ba pare dañuy yalwaan est-ce que tamit yelwaan bi ñuy yelwaan nit ñi ñoo ngi leen di accueillir accueillir bu rafet ndax léeg-léeg nag ñu xaw a toog tumuranke est-ce que ñoom amuñu yenn problème mm-hmm. yu nga xam ne ñu ngi koy jafe ñu ngi koy ñu ngi koy jànkonteel mm-hmm. ak yow mi nga xamante ni yaa leen yor mm-hmm. est-ce que yëgoo ni ñoom ñoo ngi am jafe-jafe ci yelwaan woowu bu ñuy def waaw macha allah comme ni nga ko waxee rek Euh, fa tabaarakallah yàlla def na moom bu ñu fi ñëwee ba léegi moom wax dëgg yàlla mm-hmm. presque nekk na un an léegi nekk na un an bu xaw teg rek mm-hmm. waaw li ñuy yalwaan ni moom fa tabaarakallah euh, mosuñu ci am jafe waaw bi ñu fi ñëwee ba léegi hmm. xale musul dem ba ba ba am ku ko jiital indi ko ne oustaz sa taalibi bi daal am na lu am na daa am na lu mu jël hmm. wala am na lu mu def wala dafa jël nangam wala am na problème hmm. loolu musul am ci musul am fa tabaarakallah yàlla defal ñu si suturu ci loolo bu ñu fi ñëwee ba léegi taalibi ñu ngi yalwaani di dellu si di ñibbisiwaat ñu ngi dem ci heure ndaxte man heure laa leen may waaw dama leen may heure heure laa leen may heure nangam dañuy yalwaani heure dal heure nangam dañuy dall ci te teguma kenn si ñoom dara waxuma la versement nangam ngay indi dama leen dem dem leen yalwaani bu ngeen amee ngeen doll si bu ngeen amul ngeen doll si ndax jàng moo leen fi indi fa tabaarakallah ndax seeni waajur dañoo jël am yaakaar yu rëy ci ñun indi leen ci daara ji ndax ngeen mën alquran ñun yaakaar booba nag lañ bëgg matal te bëgguñu tas seen yaakaar waaw ndaxte tout man des fois dafa may dafa may métti doxantu ci dëkk bi rek ba dajeg ay yenn heure ma dajeg yi taalibe nekk ci kaw tali bi loolu dafa may métti lool te loolu rafetul keroog maa ngi ko doon waxtaan bu ñu invité ci rajo Alburaq tamit waxtaan naa ko foofu ci du jëm ci daara ji man loolu luñ war a xoolaal la nit ki yow oustaz mi jàngale ay nit jox nañ la say doom nga jàngale leen war nga leen toppatoo nga bàyyi leen xel nga def euh, sa juhda bu rëy ndax nuñ mënee alquran ndaxte e, xamal ni e, say waajur yi buñ nekk fee ci sa si dëkk ba am na ñuy ñëw ci kër bu foofu di nammeeku ana sa doom sama doom nangam mi ngi mi ngi dëkk nangam di jàng alquran sa dëkk mi ngi dëkk nangam di jàng alquran te borom mi ngi fi jàngul day taxawaalu mi ngi ci kaw tali xam nga loolu rafetul kon toujours loolu man maa ngi koy ñaaxaat suñu mbokku ustaas yi nañuy am pas-pas ci daara yi di jàngal xale yi jàng jàng bu baax am na ñoo xam ne sax ñoom taalibe bu ñu demee di yalwaan day am ñu leen di woo di leen laaj tëril ma saara nangam xam boo mënul rek xam dañuy wax carrément kii moom jàngalul kii moom day commerce ak taalibe yi te loolu day yàq deru sëriñ loolu baaxul kon loolu man maa ngi ci ñaaxaat suñu mbokk ustaas yi nañu góorgóorlu ci njàngale xale yi ñu gëstu leen ñu ndax ñu man fa tabaarakallah ndax euh, ndam bu rëy la ndax mission bi mission bu rëy la fa tabaarakallah keroog dama gën a am mm. cawarte ci Pape Makhtar Kébé muy waxtaan mm. mu ni Seydil Hadji Malick dañ ko laaj lan moo lan la gën a bëgg ci addunam mm. Seydil Hadji Malick lan la tontu mu ni mu toog ay xale ay xale wër ko muy jàngale fa tabaarakallah loolu bi ma ko déggee dama gën a am confiance macha allah ci jàngale wallahi al azim ma kontaan trop trop ba léegi su ma ko xalaatee rek wallahi damay gënaat am confiance billaay ma ne alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin Seydil Haaji Malick mën na wax li ñun ti yàlla def na xiir nañu tamit ñu ngi toog ci daara di jàngale ay xale alhamdulilah kon ñu ngi gën a sant yàlla nañ ci amal confiance kon nañu xam ne ñun ustaas yi am li tuutiwul hmm. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xayrukum man taallama alqur'ana wa allama ku gën ci yéen mooy ku jàng ba pare toog di jàngale hmm. fa tabaarakallah kon lu rëy la hmm. alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf loolu am na solo ndax tamit yooyu dafay baax nit ñi xam ko Euh, yalwaan bi nga xam ne ñoo ngi koy def bëri na ñu nga xamante ni ay sëriñu daara yu nga xamee yàlla mënal na leen am na ñu sutura am na ñu xéewal bu nga xam ne yàlla xéewale na leen ko ba war nañoo yor ay ndongo daara te duñu dem yalwaani mais ñu ci bëri dafa am benn euh, hëdëf bu ñu am benn objectif mooy xale bi na tàmm tumuranke na tàmm coono na am jafe-jafe yu nga xam ne dina ko dund pour ëllëg mu xam lii lu mu ko mën a jëriñ donc kon loolu lu am solo la oustaz am na ci yu baree bare yu nga xam ne dugg nga ci te yooyu da daan nekk ay question yu nga xamante ni benn bu ne dañ ci daan ñëw mais sànq bi ngay nuyoo tudd nga wàllu jamaaya wax ni yow am na benn benn benn association bu nga xamante ni yow ci nga tënku te mu nekk fii ci Tivaouane est-ce que yow gis nga ni association yooyu ñuy tudd ci wàllu alquran est-ce que am na njëriñ wala amul njëriñ. waaw macha allah wa Euh, li nga ma laaj ci wàllu jamiya mm-hmm. macha allah yàlla def na nag euh, euh, gaaw ma ko woon yëg mm-hmm. waaye sama dafa am sama benn xarit bu tudd Abdou Aziz So mm-hmm. ñu bokk ci daara ba fee ñuy am na daara bu nekk foofu tamit fa laay yokk xam-xam di jàng foofu ku ñuy wax ci yenn Bokar Diallo fa tabarakallah suñu mbokk tukulóor dañoo bokk diwaan fee ci Fuuta mm-hmm. ci daaram foofu tamit laay jël ay darsu moom Abdou Aziz moom ma ko wax mu ne am na benn jam yi buñ taxawal fa mm-hmm. tabarakallah daara daara yi rek moo leen tax a jóg mm-hmm. daara bi nag euh, jam yi nag bi mu ci duggee fa tabarakallah gis naa gis naa si njëriñ bu rëy ndaxte am na xale yuy réer am na xale yu taalibe yuy réer bu fekkee am na xale bu réer dañ koy photo dugal ci biir ëtt bi bu boobaa nag buñ ko dugalee ci ëtt bi dañ koy wax ëtt bi yëpp koo xam ni fa tabaarakallaa photo bi da nga koy jël waneeku ci biir daara bu fekkee am na ku xam xale bi ñu euh, buñ ko gisee xale yi buñ ko gisee ñu mën ko wax te loolu buñ bu ñu taxawalee jam yi ba léegi fa tabaarakallaa am na ñu ngi ciy gisaat xale yu réer yu bëri fa tabaarakallaa te am na yenn ndimbal tamit yuy ñëw ndimbal yuy ñëw fa tabaarakallaa bu ñëwee tamit mi ngi jaar ci jam yi comme ni nga ko waxee Mouhamed boobu fa tabaarakallaa euh, li nga xam ni monsieur maire def na ko euh, jël loo xam ni jël benn nit def ko ci biir euh, maire bi nga xam ni kii daar daara yi rek moo ko tax a jóg xam loolu yombul daanaka sax man mosuma ko gis ci benn maire fa tabaarakallaa mu jël Mamadou Sall bokk na ci ëtt bi moom fa tabaarakallaa moo tax am na ndimbal yu ñëw bu ñëwee ci loo xam lay jaar te dina ñëw dina egsi ci ci jam'i bi hmm. te képp koo xam ni nekk na ci jam'i bi hmm. fa tabaarakallaa di nga ci gis a sa bopp li mooy santine Seydi El Hadji Malick am na ndimbal yi ñu woon hmm. fa tabaarakallaa ñun ñëpp jot nañ ci ba ci ay xotti yére yu mu defoon ñun ñëpp jot nañ ci loolu yëpp euh, jam'iyi bi moo ko waral loolu moom kon jam'iyi bi ñun amal nañu solo gis nañ ci gis nañ ci suñ bopp macha allah jërëjëf loolu am na solo ndax mm-hmm. loolu am solo la ndax nit ku nekk tamit mm-hmm. bu fekkee nekk nga ci mbir war nga fexe ba nekkandoo ci ak ñi nga xamante ñoom nga bokkal loolu kon loolu am solo la mm-hmm. souvent nag dafa am yu nga xamante day faral di bare par exemple di nga gis ñu nga xam ne dañuy wax ay association lañu pour daara yi te la ci ëpp bëri euh, la ñuy gën di doxal mooy seen intérêt bu personnel donc yow nag association bi nga wax mën na am ñu bañ a bokk ci ñooñu te dañuy ñaan tamit ñu bañ a bokk ci ñooñu mm-hmm. ndax tamit Sénégal loolu moo tax mu metti ndax dangay ngay woote kuréel ni kuréel gii pour sëñu sëriñu daara yi la mm-hmm. alxuraan moo ko tax a jóg mm-hmm. te bu fekkente ni fukk génn na fukk génn na nga lekk juróom-ñeent yee génn benn donc yooyu dafa nekk yu nga xam ne am solo yu yu yu jar a bàyyi xel la mais oustaz wax nga li nga xam ne neex na la fii ci daara woon li la neex ci dëkk bi mais tamit am na yu nga xamante ni di nga ko di ko gis mm-hmm. ci dëkk bi mm-hmm. mu nekk ay comportement mm-hmm. ci ndongo daara wala mu nekk ci comportement ci ku dëkk Tiwaawan loolu tamit ban gis-gis nga ci am maanaam gis-gis bi nga am ci comportement bi nga gis ci ñi dëkkee dëkk bi ak yennati ndongo daara yu nga xamante ni aussi ñoom ñoo ngi jàng alxuraan. waaw macha allah comme ni ma la ko waxee woon rek bu fekkee ni moom ci wàllu njàngin bi moom. des fois moom euh, dinaa gis ñoo xam ni moom comme ni ma la ko waxee nag comme yenn ndong yenn heure ngay dox ba gis leen ci mbedd mi yooyu moom euh, rafetul te rafetul ci eh, koo xam ne oustaz la day jàngale ñu jox la ay doomu jaamur nga leen di jàngale loolu war nañ ci bàyyi xel loolu moom nekk naa lu mu koy eh, nekk na loo xam ni dama koy naqarlu toujours waaw tamit gis naa ji am na samay mbokki daara yu ñu dendandoo foofu mm-hmm. macha allah gis naa ñoom tamit dañuy jàng jàng bu baax ñu ngi jog yi ay quatre heures la ñuy jog fa tabaarakallah bu ñu jógee dañuy jàng te ñu ngi jàng jàng jàng bu sell tamit fa tabaarakallah loolu tamit fa tabaarakallah dëkk bi tamit eh, gisuma fi dara lu dul comportement bu rafet comme comme li ma ko waxoon rek dëkk bi dëkk Seydul Xaaji Malick la Seydul Xaaji Malick moo ko tàggatal boppam moo taxit fa tabaarakallah munoo fi gis dara lu dul yiw munoo fi gis dara lu dul mbaax te dëkk bi dëkk bu bu yem la bariwul biri fa tabaarakallaa dëkku leer la damay wax xale yi sax man man sax des fois damay am ay abayaat yu may yu may nekk di jàng di dóor ay baat mm-hmm. ma leen dëkk bi wallahi am na leer ndaxte su ma jëlee sama kurus euh, euh, fanweeri pepp su ma euh, fanweeri pepp laay laay jàpp mm-hmm. su ma mën naa jël fukki abiyaat su ma dóoree sama fanweeri pepp pepp rek mm-hmm. day fekk abiyaat yi ma kër naa ko ma ni macha allah dëkk bi am na leer de toujours may waar ci xale ma ni dëkk bi am na leer góor-góorlu leen ci jàng bi bu fekkee ni léegi am ngeen pas-pas bu rëy ngeen di jàng ngeen di jàng ni mu waree fa tabaarakallah li ngeen jàng ngeen mokkal ni maa sama sama alluwa yenn abaya sama alluwa laay jël bind mais su ma ju dóoree baat tuuti dama koy kër macha allah. wa tabaarakallah euh, jërëjëf la li mu wax tamit loolu maanaam ñi ko mën a firndeel bëri na bëri bëri ñu nga xamante ni bind nañu ci li ngay wax nii ndax gis nañu ni Tiwaawoon dëkku leer la Tiwaawoon dëkk la bu nga xamante ni boo fi ñëwee rek ngir mbaax boo fi ñëwee ngir jug loolu lu yomb la donc dafa am lu nga xamante ni tamit daf dañ cee tënku loolu nag nekk lu am solo muy ñun dañoo nekk ci réew te réew mu nekk nag dafa am lu muy dox am ay réglement am ay charte yu nga xamante ni moom moo ëmb réew ma mais gis nañu fii ci Sénégal léegi dañu wax ni kat daara ju nekk gaan daara ju nga xam ne nekk nga fii ci daara ci ci ci Sénégal war nga am kayit bu wane bu wane ni yow daara nga donc loolu nag ñu koy amee ci euh, inspection bu nekk inspe dëkk nit ku nekk boo sampee daara ci dëkk war nga fexe ba dem ci inspection inspecteur ba yem ba yor wàllu daara yi nga xamal ko ni kat man dama am daara wax ko déclarer est-ce que loolu tamit yow jot nga ko am mhm. aussi bu fekkee am nga ko mhm. ban bis gis-gis nga ci am bu bu fekkee amoo ko tamit ban gis-gis nga ci am mhm. waaw lu jëm ci affaire kayit yooyu moom yooyu moom daanaka yooyu jotuma ci am waaye jéemoon nañ ci wax ak Mamadou Sall jéemoon nañ mu ñëwee ci suñu benn ndaje jam bi ñëwoon na ñun euh, ustaas yi ñu won ko ci euh, lu mel noonu mm-hmm. ñu ne nañ euh, nañ ñu dimbalee ñun ustaas yi jàngee ku nekk si ñun am am kayit mm-hmm. waaw wax nañ ko lu bëri tamit jam yi bi soxla na ustaas yi jàngale mm-hmm. monsieur le maire nañ dimbalee ustaas yi ndax ñu nekk fi ku nekk si ñoom am am kër loolu tamit ñaan nañ ko macha allah moom Mamadou Sall na ko wax monsieur le maire ñaan nañ ko sax ak euh, benn kii ndax invitation mu invité jamiya bi ñu am ñu wax ko ñun suñu bëgg-bëgg yu ñu am pour monsieur le wax ko moom Mamadou Sall waxoon na dinañ xoolal dañu danañu xool benn bés fa tabaarakallah après ñu xool ci ñenn dem toogu doom muslimeer ñu wax leen seen bëgg-bëgg ndax ñu mën ci am am comme kayit bi nga laaj ndax ku nekk euh, ku nekk si ñun mën a am ci kayit yooyu boobaa tamit ñu mun ñoo jàpp jàppale ñu am parcelle fa tabarakallah ndax alquran fa tabarakallah lépp loo ci def fa tabarakallah ah, yiw rek lay doon te doo doo ko rëcc comme ni ñu amee taxawaay ci école yi di leen toppatoo di leen nemmeeku di leen defar ñoom nguur gi war nañ am taxawaay boobu ak himma boobu ci alquran li nga xam ne ñoom lépp luñ soxla ci ay ñaan mm. ci ci ustaas yi la ñuy dolli si ñi toog di jàngal alquran mm. la ñuy dolli siwaat di ñaan mm. kon fa tabaarakallah war nañ gis gëstuwaat daara yi di leen nemmeeku chaque instant di leen xool ndax am nañ ay ba ci ay lal ay bassan ay moustiquaire yooyu yëpp war nañ ko di nemmeeku di ñëw ci daara yi di xool fa tabaarakallah loolu tamit lu jar a bàyyi xel la incha allah yooyu jar koy bàyyi xel bu baax a baax donc ñun sëriñ daara yëpp ñu bàyyi ci xel xam ni tamit réew mu nekk na muy doxee rek il faut que kenn ku ne jéem a fexe ba sàmmonte ak la ci réew ma ndax loolu moom moo lay sécuriser loolu mooy tax bien que sax kii nga xam ni moom moo nekk ci daara yàlla sécurité na ko sécuriser na ko ba pare ndax li nga xamante ni yàlla amu fi lu dul moom nga fexe ba jël ay tut tànk ay ndaw yu nga xamante ni seen bopp dara nekku ci woon nga fexe ba def ko ci ñoom kon loolu sant yàlla la mais u oustaz tamit est-ce que bi nga ñëwee Tiwaawan am nga li ñu tuddee ay ndeyi daara ndeyi daara nag ni mu ko bëgg a waxee waxuma rek ndeyi daara yi nga xam dañuy dimbale xale yi noonu mais ndeyi daara yu nga xam dañuy faral di ñëw ci daara ji di toog di waxtaane daara ji di xam li nga xam ne mooy jafe yi xam li nga xamante ni kat lii ay avancé la ciy jàpp est-ce que am ngeen am nga kuréel googu waaw fa tabaarakallah euh, ci euh, temps yëpp passé am na ñu fi ñëwoon fa tabaarakallah ci koñ bi foofu lañu dëkk euh, di tudd kenn ki ki jiite mi ngi tudd Nenne Sarr moom moo ñëwoon ci foofu mu ni incha allah moom daa jël na taxawaayam moo ak soxna imaam imaam xulle ñoom ñooy ndey daara yi foofu ci koñ bi incha allah ñu ci koor gi ñu amuñ ci taxawaay bu rafet amoon lu ñu dajalee ba ci ay saabu ay omo ba ci ay bassan ay siwo ay paan ñoom dajal jéemoon nañ ko dajalee ba indi ko foofu ci daara ji fa tabaarakallah mhm, fa tabaarakallah loolu tamit am na solo jërëjëf loolu am na mhm. solo ndax tamit ñooñu soxna yooyu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen sant bu baax ci taxawaay yooyu di nuyu tamit imaam xulle mi nga xam ne moom nga tudd nekk tamit imaam bu am solo nekkoon tamit ku daan def tarbiyaam ci ëttu Cheikh Mouhamadul Mansour Sy borom daara ji kon ñu ngi leen di nuyu de passage mhm. waaye du ñu yem ci nuyu leen rek waaye di leen bu may ñaax nag ñaaxuma ñi nekk ci quartier boobu mais ñi nga xam ñoom ñoo nekk yépp ci Tivaouane nañu góor góorluwaat ci nga xamante ni mooy daara góorgóorlu ci ñi nga xamante ni mooy ndongo daara yi ak sëriñ daara yi ndax am na lu nga xamante ni il faut ñu comprendre ko tey sëriñ daara bi am na lu mu xam tey yàlla bu ñu bàyyee ñuy dund ni bu ñu bàyyee ñuy nekk ci suñu dund ndax xam naa ne bu fekkee sama classe technic technicien bi ñoom dañuy wax ni ay xappi maanaam nit ki boo demee bay xappi boo koy tal booba daara yi ci la bokk jàng nañu ñu wax ni mm-hmm. des fois yàlla dafay toog mm-hmm. ba bëgg jël àdduna rek bëgg a jaxase asamaan ak suuf mais bu xoolee ndongo daara yi nga xamante ñoom ñooy nekk mm-hmm. di jàng téereem bi di di yaxantu mooy tax mu delluwaat ginnaaw ci loolu kon damay ñaan def appel bu nga xamante ni dama koy ñaan parents d'élèves yëpp même boo amee ndongo daara ak boo amul ndongo daara nañu dimbali seen bopp nañu dimbali seen bopp dimbali seen bopp nag moo ñu dimbali daara ndax tamit min maanaam bu jugee ci yow ci yow la dellu dellu siwaat defaloo ko Cheikh Ahmada Tidiane defaloo ko Mansour defaroo ko Maodo mais yaa ngi koy defal sa bopp ndax yàlla loolu la fi am te kenn ku nekk responsabilité la ci yow nga fexe jël sa doom teg ko ci yoon euh, sa gis nañu ni tamit fii ñu toll nii ci jamono euh, bëri na ay ndongo daara yu nga xam ne le léeg ñu am jafe-jafe ci wàllu sante wàllu wér-gi-yaram est-ce que loolu tamit yéen sa daara am nga ci xalaat bu nga xamante ni mm. maanaam am nga ci lëkkaloo mm. ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu santé fii ci dëkk bi. Mm. waaw macha allah euh, li nga ma laaj ci wàllu santé bi mm-hmm. wa tabaarakallah loolu tamit jéemoon naa ko jéemoon naa ko gistu ci sama xarit bi ma la waxoon muy Abdou Aziz Sow moom moo ma ko waxoon. Mm-hmm. ndaxte bi ñu fi ñëwee euh, des fois day euh, xale yi dañuy feebar mm-hmm. ah dañuy feebar boo demee ci boo demee hôpital mm-hmm. ñu bindal la ordonnance yoo xam ne day day xaw a day xaw a seer fa tabaarakallah Abdou Azim mu ni ma bu boobaa Cheikh boo demee hôpital boo demee am na ñu fa nekk euh, boo demee mën nañ la wax dañ lay laaj say ndongo ñaata lañ dañ koy bind bu boobaa danañ la defar benn kayit boo xam ni buñ la ko defalee bu ñu la bindalee ordonnance boo demee pharmacie hmm. fa tabaarakallah bu boobaa yow dañ lay xaaj bi yëpp ñoom ñoo koy fay yow nga fay fay xaaj bi hmm. jéemoon naa ko euh, kii waaye jéem euh, mu juul woon sotti waaye bëgg naa nag su ma su ko amee moom fa tabaarakallah dina ma ah, dinañu dimbale lool fa tabaarakallah. Euh, am na solo ndax tamit loolu bokk na nga xamante ni dafay dimbali ndongali ndax wér ak wére di ñoom ñoo ànd mën ak mën di ñoo ànd te tamit ñi ñu yor ñi ñu yor bàyyi leen ci xel ñi ñu yor dañoo néew doole ndax jigéen. ak xale dañu néew doole donc kon jaaru nañu jàppale leen comme ni nga ko waxee noonu la demee am na service santé bu am na service social bu nga xamante ni am na ci hôpital bu ne waaye tamit ñi nga xamante ni sànq wax nga Mamadou Sall yaa ngi koy tudd ak yu baax yi muy def mm. mais dañ koy ñaanaat mu gën a góorgóorluwaat gën a yokkaat ba nga xamante ni mm. euh, ni ñuy amee mutuelle de santé mm. nga xamante ni mutuelle yooyu nit ñi dañu ciy dimbandiku maanaam ñu dimbali ci sëriñu daara yi ba loolu ñu mën cee taxaw taxawaay bu nga xamante ni bu am solo la ndax tamit loolu seen responsabilité la bopp ndax xam nga bu ñu waxee ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ni kenn ku nekk sàmm nga ci sa njaboot donc loolu Mm. Diop si Demba Diop mm. tey jii sàmm la ci population bu Tivaouane mm. donc war naa jéem a xool nu ñuy dundee rawatina nag ñun ñi nga xam ñoo dañoo nekk ci daara kon loolu incha allahu taala après dañ ci gën a tax def ay taxawaay gën cee def ay yitte ba yëf yi gën a dox euh, léegi nag dama bëgg nga dellu siwaat ci waajur yi nga xamante ni ñoom ñooy faral di joxe seen euh, seen seen seen i doom yan dénkaane nga leen di dénk. waaw fa tabarakallah euh, Euh, li may wax ci waajur ñi nga xam ne rek ñi ngi jox seeni doom ustaas yi ñu leen di jàngal mm-hmm. wa tabaarakallah baax na ci baax na ci tamit boo joxee nit ki sa doom daal fa tabaarakallah na nga am euh, confiance bu rëy ci moom mm-hmm. waaw nga wàññi tamit comme woote woote yu bëri waaw ndaxte xale bu fekkee yaa ngi bëri ci moom ay woote wala na ñëw na na ñëw xoo ah, seet si dëkk bi ak yooyu na ñëw julli si wala na ñëw korite ak yooyu yooyu mën na mën na yàq jàng xale bi mm-hmm. comme jël nga sa doom maye nga ko ci alquran mm. fa tabarakallah kon jëlal sa wóolite yëpp sa pas-pas yëpp nga delloo ko yàlla nga xam nga xam ni yàlla nga ko jox mm. te lépp loo bàyyi yàlla moom xamal ni incha allah day baax rek kon dem leen di wax rek nañ gën a am confiance ci sëriñ ji ñu fa tabarakallah ñu xam ni yaakaar yuñ jël ba jox ko euh, ustaas yi incha allah nañ gën a dëgëral seen i yaakaar gën a dëgëral seen pas-pas incha allah yéen yu ñu am yi seen doom yi mokkal ñun ustaas yi jàngale yi fa tabaarakallah ustaas saa ndongo toogee ci kanamam mu koy jàngal moom moom ustaas bi mi ngi ñaan man li ma xam ci tuuti xam-xam bi ma yàlla may yàlla na ko yàlla def ci ndong bi toog sama kanam moom ndong bi fa tabaarakallaa xam naa moom tamit mi ngi xalaat sama ustaas bii toog di ma jàngal moom tamit mi ngi ñaan sama ustaas bii li mu mën ci tuuti xam-xam yàlla na ma yàlla may li mu mën fa tabaarakallaa loolu moo xam naa ci lisaanu xaal lay nekk ku nekk ci ñoom am na yéene boobu ñun tamit suñu yéene ci ndong yi mooy nañ man nañ fa tabaarakallaa fu xam loolu dafa neex mm-hmm. nga jàngal nit ki bu mu mokkal fa tabaarakallaa mu dem taxaw bërëb sàngam jàngaf ñu ne ki bërëbu nangam la jàngal mm-hmm. oustaz oustaz nangam moo ko jàngal mm-hmm. xam nga loolu ndam la fa tabaarakallaa kon loolu lu rëy la ñun ñoo ngi sakku ñaar rek incha allah euh, gisuñu dara euh, bëgguñu soxluwuñu dara lu dul toog di jàngale doomu julli yi ndax ñu mën alquran fa tabarakallah ñun moom lii moom ñoo ko tànnal suñu bopp fa tabarakallah suñu waajur moo ñu ci gën a xiir tamit waaye tamit ñun tamit daa fekk tamit tamit ñu gën ko tamit bëgg fa tabarakallah moo ta gisuñu dara gisuñu borom alal gisuñu ñi yéeg ci avion yi di dem di ñëwaat déedéet ñun toog jàngale alquran bi loolu lañ gis loolu moo ñu doy fa tabarakallah ba yàlla indil ñu macha allah li ko soob incha allahu taala te rëcc wuñu ci tamit ñu ngi ciy suturaalu fa tabaarakallah ñu ngi ciy suturaalu alhamdulillah macha allah. Euh, jërëjëf euh, oustaz ndax euh, kàddu yi am na solo li nga wax tamit lu dal xel la lu yaakaarul la ndax loolu tamit jaadu na jur yi di ci bàyyi xel ndax tamit boo jëlee sa doom joxe ko mu nekk ci àll mënoo chaque jour rek nga koy karre-karre di woote te tamit loolu mm. bëri na lu mu mën a yàq ci éducation xale yi mm. war nga ko di gëstu war ko di nemmeeku waaye boo yemee ci sëriñ ba doy na hmm. boo waxee ak sëriñ bi dina la expliquer ni la kat moo ngi ci li moo ngi ci la mais bu fekkee da nga saa yu nekk nga bëgg a woote tamit hmm. loolu mën na am lu mu yàq hmm. euh, oustaz tey dañuy jégal bu baax a baax ndax waxtu bi ñu waroon a tàmbali tamit xëy na gàllankoor comme niñ ko waxee sànq jafe-jafe bi ñu am ci wàllu technique ndax heure bi waroon na fekk muy jàll ci quatre-vingt-sept point six waaye nag jaam pexeem yàlla dogalam sottiwul loolo sax bokk na ci li ñu poussé ba ñu am retard bu bëri bi euh, te waxtu wi nga xamante ni moom la ñu war a yëkkati jotaay bi daanaka jot na léegi nag ñu bëggoon rek nga joxe kàddu yu mujj yi nga xamante ni diñ ci euh, moom daal yow yaay seet yan dénkaane ngay joxe ak euh, lan ngay tëjee jotaay bi incha allah. waaw macha allah kontaan nañ trop di jiitu yëpp kontaan nañ ci invitation bi kontaan ci trop fa tabaarakallah ndaxte. Eh, bëri na dëkk bi bëri na ay oustaz ñuy jàngale bëri na ñuy yor daara lool wa tabaarakallah waaye nga tànn ñu ci biir oustaz yooyu nga wooñu nga ne nañ ñëw waxtaan Eh, ñoo ngi ciy kontaan lool ñu yan yaan yàlla subhaanahu wa taala yal na yàlla yokk gën a taxawal rajo beeg télé bi yëpp incha allah eh, borom xadara bi moom tamit borom kër gi wa tabaarakallah yàlla gën ko sàmm yàlla gën ko wéral bi na nabil Mustapha ba yàlla may ko mu mu eggal macha allah mission waajuram bi incha allah taala waaw di di di di wax di ci nit ñi rek nañ gën a góorgóorlu comme ni nga ko waxee nañu góorgóoru ci alquran ñu xam ne alquran mooy lépp waaw nañu xam ne alquran mooy lépp fa tabaarakallah ndax kalaamullahi waxu yàlla la waaw waxu yàlla nag fa tabaarakallah ni war nañ ko gën a bàyyi xel buñ nekkee boo gisee ñu wax ñu ne ñu nekk kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi taamuruuna bilmaaruf wa tanhawna ani munkar alquran mi wàcce ci kaw sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax fa tabaarakallah li yàlla wàcce alquran ci kaw sayidina muhammad moo tax ñu gën a gën a baax mboole mi xeet yi wàccoon yëpp kon nañu xam ni fa tabaarakallah alquran lu rëy la nañ gën a bàyyiwaat alquran ñu ñuy gëstu fa tabaarakallah alquran ndaxte nit ñi tey tey tey fa tabaarakallaa bu ne bu nekkoon rek kër bu nekk tey fa tabaarakallaa daara bi nga dend bu fekkoon rek lépp loo togg rek du la yàqal dara nga jël sa benn bool bu ndaw nga tibb si nga yóbbu si daara ji wala nga jël sa benn potu café ba yóbbu ci daara ji fa tabaarakallah loolu dina waññi yenn jafe-jafe fa tabaarakallah lépp tamit lépp tamit nguur gi mënul defandoo lépp waaw nguur gi mënul defandoo lépp ay ni ay nit dañuy dimbalante fa tabaarakallah te nit ñi nañ xam ni lépp loo def ci daara daal ah, doo ko rëccu fa tabaarakallah alquran mooy lépp fa tabaarakallah ndax ah, yàlla ah, yenent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ci hadis nee na in inna lillahi ahlina fi l ardi qiila ya rasulillah wa man hum nee na fa tabaarakallah hum ahadullahi wa xaasa yenent bi sallallahu alayhi wasallam ah, dafa wax dafa toog ak saxaaba saxaaba yi mu ni yàlla nee na daa ay mbokk ci kaw suuf ñu ne ko ya rasulullah ñan ñooy mbokki yàlla ci kaw suuf ndax du ndax du yàlla moo bind ñëpp ñu ne waaye ci biir ñooñu yàlla am na ñu mu tànn ci biir ñooñu ñu ne ko muy ñan mu ne ahadullahi wa xaasa mooy ñi xam ne ñu borom eh, yoo xam ne dañu toog mokkal alquran toog di ko jàngale di ko defal di jàngale ay xale fa tabaarakallah nee na fa tabaarakallah ñooñu ñooy samay mbokk yi ma gën a jege man yàlla subhaanahu wa taala kon ñooñu nit ñi war nañ leen bàyyi xel jox leen seen gëdd toppatoo leen ñu xam ne lépp luñ def ci ñoom fa tabaarakallah seen yokkute lay nekk seen njëriñ lay nekk adduna ak laaxira incha allahu taala fa tabaarakallah Eh, jazakumullahu xayran jërëjëf yaa oustaz kontaan nañu bu baax a baax ci eh, waxtaan bi kontaan nañu wax dëgg yàlla ndax tamit li nga xam ni moom la ñuy yaakaaroon ci yow ba tax ñu woola am nañu ci lu kawe suñu njort te loolu lu am solo la eh, xam-xam bi rafet na leeral bi vraiment yaatu na ndax tamit tax na tey képp ku nga xamante ni rek da daan dégg Cheikh Ahmada yi Gaye te xamu ko xam na la tey ci say kàddu yu rafet ci sa jotal. wax dëgg yàlla am na solo te tamit dañoo am responsabilité bu rëy responsabilité bi bu rëy bi ñu am ñu ko waxee dañ koy wax ñun sëriñi daara yi dañ koy wax ci wayjur yi nga xamante ni ñoom ñoo jur doom yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni kullu mawludin yuuladu ala al fitra fa abawaahu yahwidaanihi aw yu majjisaanihi aw yu nasraanihi donc yooyu il faut ñu bàyyi si xel ndax képp ku nga xamante ni dafa jur dafa am fitra dafa am yëg-yëg bu nga xamante ni ñëpp ñoo ko bokkandoo mu yëg-yëg bu yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm. nga ñëw nekk nag fëy bu weex tàll mm. mais nag nit ñi fëy bu weex tàll la ñuy wax waaye du fëy bu weex tàll mais am nga yëg-yëg ndax fëy bi am na lu ci tâche li ci mooy yëg-yëgu diine mm. kon baay bi baay bi moo koy jël def ko yéeféer baay bi mooy ñëw def ko nasaraan wala mu def ko julit xaqan yàlla nañu yàlla xiir nag ci suñu njaboot yi ñu def leen ay jullit dëgg-dëgg mais ngalla nañu waat xel daara ñu nañu waat xel daara gàlla dañ waat xel daara mm. ndax lépp lu ngeen jàpp di ko kall-kalle lépp lu ngeen jël aj ko ci kaw mm. xam leen ni alxuraan moo nekk ci kaw alxuraan nañ ko joxaat gëdd mm. nañ ko joxaat gëdd donc yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax lu nga xam ni ñun ñëpp dañ ci war a bàyyi xel chaque jour bu ñu demee ci tudd yi dañ koy wax di ko fàttali fu ñu mënti toog dañuy nekk di ko fàttali mooy lan dafa am ñetti xaq yu nga xamante ni yàlla du ko baale maanaam dina ci bàyyi xel muy soo amee doom na nga ko tudde tur bu jekk na ko tuddee tur bu rafet ndax tey boo jëlee sa doom tuddee ko ñoxor wala nga tuddee ko tur bu ñaaw mm. bu demee ca daara ji dañ ko koy saboté sabotage boobu ñu koy saboté mën na bloqué xale bi mm. ba xam-xam bi mu waroon am dootu ko am ndax day am complexe ci ay moroomam bu paree wa an yuallimuhul kitaab na nga fexe ba mu jàng al alquran mm. donc loolu nag dafa nekk lu nga xamante ni du lu ay caaxaan suñu doom yi bu ñu leen nax bu ñu nax suñu bopp nañu yóbbu suñu doom yi ñu jàng alquran wa an yu zawijuhu isa balagha kooku tamit ci àq yi la bokk bu demee ba majeur war a jël soxna nga takkal ko naam donte nit ñi sax classe Mourchid Diatta Ndiaye yi léegi boo waxee ñu ne maay tànnal sama bopp waaw tànnal bopp bi loolu am na mm-hmm. mais bu fekkente ni la mu la njëkk a wax def nga ko mm-hmm. doo am problème ci tànn ndax bu fekkente ni xale bi jàng na diine jàng na alxuraan su boobaa jarul papaam naan ko demal ci nogoy wala ci faatu ndax su boobaa dina mën a tànn tànn bu rafet kon ngal la nañu bàyyiwaat xel alxuraan ndax amuñu fi lu dul alxuraan amuñu fi lu dul diine amuñu fi lu dul Tiwaawan gii nag ndax Tiwaawan gi lu jar a bàyyi xel la dëkk yëpp ay dëkk diine lañ waaye Tiwaawan gi jar naa bàyyi xel ndax Seydil Haaji Malick li mu wax ci Tiwaawan du Tiwa du dëkku du dëkku ci axaan dëkk la bu nga xamante ni dëkku diine la dëkku xam-xam la dëkku njub la ndax Seydi Haaji Malick fowul foluwul ndax lii mu bind ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko yóbboo ba ca Kaaba ga ndax sax am na itam bañ ko yóbboo ba ca Kaaba ga nit ñi dañ doon wax kan moo bind lii bañ ne ne Seydi Haaji Malick dañoo ni ku ñuul mënta bind lii donc kon ñun it ñun ñu dëkk Tiwaawan nañu dimbali Seydi Haaji Malick nañu dimbali suñu bopp donc loolu il faut que ñu insister ndax émission daara yi loolu moo ko tax a jóg nañu góor góorlu ñun sëriñ daara yi tamit nañu góor góorgóorlu ci njaboot gi ñu jox ñu sàmm leen aar leen jàngal leen bañ leen utiliser loolu tamit ci la bokk bu ko defee loolu moo nekkoon émission bi nga xamante ni mooy émission daara yi tey waaye nag mënuñu yëkkati jotaay bi te santuñu gërëm suñuy wayjur yi nga xamante ni ñoom ginnaaw yàlla lu ñu mën ñoom la ndax ñooñu jàppale tàggat ñu dugal ñu ci euh, alxuraan dugal ñu ci yar bu baax muy suñu wayjur yi moo xam suñu yaay la wala suñu baay yàlla na yàlla yokku leen leer euh, rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira la ñuy wax di sant na mi suñu frères yi di sant suñu sœurs yi may yaakaar naa may gay bi ñu commencé ba tey moom mooy suivre émission bi di topp moom ak may sàll ak ñi nga xamante ni yëpp ñoo ngi safoo émission bi du ñu fàtte nag nuyu suñu ki nga xamante ni amuñu lu dul moom muy sëñ góor a alxuraan góor a alxuraan dafa nekk nit ku bëgg alxuraan nit ku am yitte émission bi xëy na tey li mu paan moo tax mais bu rajo bi amul woon problème bu njëkku la woote balaa ñoo tëj téléphone bi dina woote góor a alxuraan ñu ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal li nga bëgg ci alxuraan bëgg ko ji ci diine yal na yàlla defal lu kawe sa njort di sant itam Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy Al Maktoum moom mi nga xam ni moo ñu may opportunité may ñu occasion ñu jël rajo bi di ci waxtaane alxuraan di ci waxe di ci waxtaan ci valeur ndax tamit rajo buñ ko tànnee ni dañ ko def ni euh, li tax mu jóg mooy xeex wala yi fësal euh, valeurs yi kon loolu dañ ko koy sante di sant ñi nga xam ne ñoo koy jàppale Cheikh Ahmada yi capitaine Mam Babacar ak njaboot gi nga xamante ni yëpp ñoo yaakaar ci ginnaawam ñoo leen di sante bu baax mënuñoo yëkkati jotaay bi nag te sant ñu suñu technicien bi nga xamante ni tey bu ñu nit ñi di dégg-dégg bu rafet di ñu gis-gis bu rafet moom moo tax muy Mourchid jaata Ndiaye di waa ji nga xamante ni vraiment jàmbaar la borom émission matinale yu am solo yi ki nga xamante ni wax dëgg yàlla mu ngi bégal waa Tivaouane saay su nekk soo génnee ci dëkk bi wala des fois nit wala nan laa ah, Mourchid Diar waa kii def émission yi donc loolu yitteem la donc Mourchid yow ñoo ngi lay ñaanal bu baax nekkoo technicien rek waaye animateur nga reporter bu am solo nga yal na yàlla yokku la jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dañ ko bu baax